waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi ñuy safoo tey bàyyi xel seen site préféré bi ñu dippee duppee 24 actu Sénégal ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk fu mu nekk ñoo ngi naan suñu loxo di ko ziyaare di ko ndokkel tey tam ci weeru koor ñu dugg te di ko wax yàlla nañu yàlla may kooru jàmm tey nag ñoo ngi dikk ak yéen fii ci jumaay Touba jumaay Touba nag ku ko masa xam xam nga ne bu waxtu wi masaana jot ku fi sànn mbatt mu tak mais tey jii ak ni mu mel nii waaw kenn demul kenn dikkul loolu nag indi ak jaaxle waaye seen site préféré bii ñu duppee 24 actu Sénégal fas yéene ànd ak yéen ci lépp luy xew-xew lépp loo xam ne rek ab jotaayu diine la dañ ciy fas yéene ànd ak seen mbokk seen xarit. soxna Dabaloo. war cee feggoog ku ñu naan soxna Xadijatu Sey bu ko kenn tàddee ci seen site préféré bii ñu duppee 24 actu Sénégal kon ñoo ngi ànd ak yéen euh, ba ci kanam. ma seen wàccuwaay di leen nuy di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq waaw kuréel bi nag moom mooy dala xel bu sëriñ Saliou dala xel bu Serigne Saliou leen rek moo ko tax a jóg mooy malade mental yi xam ñoo nekk ci dëkk bi wére di xel tumuranke fu nu tëdd ak tumuranke tamit ay mbokk gisatun day gisatun baay di fanaan ci mbedd mi dala xel bu Serigne Saliou bi moo jóg volontaire di leen fekk bërëb yi nekk ñu leen di wat di leen sang di leen solo ay yére ban mënaat euh, bokkaat ak askan wi ndaxte dañoo xool ne ci société bi lañ bokk te kenn waru leen a boddi moo tax dala xel bi leen rek mooy objectif am mooy toppatoo ñi nga xamante ni ñooy wéradi xel am jafe-jafe fu nu tëdd ak di fanaan ci mbedd ak di def yaramu neen di nekk ci mbedd mi di daw dala xel bi saa su ne ñi ngi jóg ci toppatoo ñi nga xam ñooy seen mbokk yooyu loolu mooy kuréel dala xel bi sëñ Saliou bi waaw sëñ bi ak jamono jii ñu toll ak couvre-feu bii ndax ban moyen ngeen koy ngeen koy defee waaw métti na fekkee nañ wax rek te yàlla métti trop parce que chaque jour danañ taal mbana parfois dañuy togg ay vermicelle parfois ñu togg ay macaroni parfois dañuy togg tufe kese mais moyen bi du ñun ñoo ko am moyen bi du ñun ñoo ko am li ñu toggee du ñun ñoo ko am dañuy dugg si terrain bi chaque jour dana luyee oto bu mel nii Mbacke Touba bii si ay rajo teg ci ni son di wër ci dëkk bi gars yi ñëw di ko jaayante nombre bi ëpp na fii yéen da ngeen a yéex a ñëw mais fekk ñu dem. gis nga moto bi dafa servi woon ay reer jël ko nga xool moto bi ñaari oto dem nan ñun ngeen fi fekk ñu doon waaj départ bi yëpp ay sandwich la def dañu jënd ay sept paquet ndox yor ay sandwich yu doy man mi fi toll nii Mbàkke laa war a servir sama moto nga nee bu ma fi jógee léegi Mbàkke laay dem servi malade mental yi fa nekk ñii laay ñii laay yamale Touba ñu wër li wër Touba ñu fi toppatoo ñu wér di xel mais man Mbàkke laay servir mais li ñu toggee ñun rek ñoo ñu koy jox muy askan wi ñu néew doole rek ñoo ci def seen loxo. mooy maire yi nekk si marché bi ak paa yi néew yi ñoom rek ñoo ñoo génne seenu ñax di ko jaayante di ko jox waa dala xel bi sëñ Saaliw loolu nag ci la ñu génne seen fukki ak seen juróom yi ak seen dugg yi ni jaay ñoom macha allah ci la ñu génne di ñu jox di ñu dimbale ci la ñuy dajale jënd si pomme de terre ak yu sew sawaan fexe ba togg bis bu set noonu leen koy jaayante oto ba da nga koy luyee da nga koy fay ñetti junni solo ko gasoil rajo yi da ngay rajo ak groupe soo paree li ngay maajaal ci ngay fay groupe groupe bi ak oto bi xam nga jënd si nécessaire yu sew sawaan yi fexe ba togg soo peree da ngeen jënd quatre-vingt-dix pain wala cent pain boulangerie yi xam na li may wax chaque jour noonu lay demee du suñu ñàkk taalibe rek ñoo ñu koy jox. voilà suñ peree léegi nag ba organisé wu ni daa am équipe boo xam spéciale Touba leen di wër service ñi fi nekk mooy malade mental yi man maay jublu Mbàkke su ma demee bërëb yi nekk xam nañ ko parce ñun ñoo leen daan sang di leen wat di leen toppatoo kon dañuy miin dañ leen di miin dañuy xam bërëb seen dëkkuwaay ñoom jox leen seen i reer jox leen ndox ñu parce que suñ ko deful couvre ñu bari kon parce que da nga gis koo xamante ni malade mental la fa muy tëdd amut li amuñu liggéey gisuñu ndey gisuñu bàyyi dañuy tëdd ci benn bërëb ba xiif ray leen te effet ça ñun bu gisee loolu te ñun ay musulman la ñuy xool suñu bokkum taalibe xiif ray ko kon ñun dañoo xam ne suñu suñu julte des na kon dañ ci def suñu doole dañ ci def suñu xam-xam dañ ci def suñu suñu moyen lépp dañ ko ciy def ngir suñu mbokk yooyu néew néew doole yàlla def ñun ñu fexe ba di leen gersu leen saytu di leen jox lekk di leen ñu naan parce que ñun ñi nga xamante ne rek ay responsabilité dara nekkul ci ñun si dara sikkul ci ñun am jafe lekk kon na xam ne réew mi dafa métti kon ñoom su fekkee dañ leen a boddi bàyyi leen xalaatuñ leen wóor na seexul xadim dana métti ci ñoom te dama seetlu émission na koy seetaan ba bi jeex ñuy wax ci wàllum corona beeg euh, couvre-feu beeg ko ci ñu ci détaillé mais malade mental yi kenn boole ci programme bi doo toog sax benn émission bu mu jeex nga ne malade mental yi pourtant ñoom dañu restaurant yi tëj na euh, tànganaay yi tëj na kër yëpp dañuy teel a tëju 8 heures ñoom rek ñooy des si mbedd mi ak policiers yi ñoom ñoo xam ne day def seen liggéey ba fa yet jot ñoom it kon askan wi dafa war a gersu di nga xamante ni mooy malade mental yi ñu leen jox lekk ba mu doy di leen jox naan ba mu doy su ko su ko état deful wala keneen defu ko dala xel bu suñ saali bi moo koy jaayante à chaque fois dañ dañ koy def bu soobee borom. ginnaaw mayoon yi nga wax yëpp ban message ngay waa askan wi moom dañ leen di sant rawatina ñi yeewoo Touba ak Mbacké ñi yeewoo Touba ak Mbacké dala xel bu suñ saali fu mu àgg ñoom ñoo ko fa àggale. wallahi azim boo taxawee ci marché yi tey lu am sax lu ñu gën a métti parce que li ñu gën a métti mooy ñun da am na naqar suñu xol mooy lan ñun fan daan tibbee ay togg fan ka daan jaayantee ndimbali fan ka daan jëlee dañ koo tëj muy marché yi marché yëpp dañ ko tëj léegi. léegi fi doon lii sànq la boo gisee ñu taxaw fi xaw fee diire ñu ngi xool ba xam suba kon nan lay def ba togg te suba weeru koor la na lay def ba togg amuñu moyen bi marché yi tëj na fa lañ daan wutee majaal di togg. tëj na léegi sànq leen ci doon waxtaan ba xam ban solution lañu mën a gis pour togg mais jafe nañu trop amagul solution te ci marché yi rek lañ ko yaakaaroon lu ñu waa marché bi jox ak waa dëkk bi ñu toggalee ko suñu mbokk yi wéra di xel xanaa bëgg àdduna bépp jàpp ci rek ñun ay taalibe leen danoo mënul suñu bopp dara te dundu gu sotti gu lu na dajee xaj ndaxte léeg-léeg ñun ñun waa dala xel bu suñu saal dinañ toppatoo nit si biir këram di ko sang ay mbokkam wala yaayam wala baayam nañu kii ngeen sang de kër gi moo ko tabax te gis nga fa mujjee daa wér di xel ban yeew ko ci kër wala mu ne jigéen ji ngeen di sang de moo jur kii moo jur kii kon dund gu sotti gu lu la xañ na ñun nag bala ñoo faatu di dem bar sax dañuy liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii tuxuñu jaayuñu lu ni lu ni bañ naanuñu def ñu leen loo xam ne suñu borom da koo sib li ñu fi nekkee mooy dëkkub Serigne Touba bi ku fi nekk da ngay set tey sellal tey dëggal ci la ñu sax te si la ñu fas faatu seen doole jeeg seen kàttan geeg seen xel mi dañ koy liggéey Serigne Touba ba bu ëllëgee ku ci ku subaame Serigne Touba mën laa nangu xam ne da nga liggéey Serigne Touba ñun dañoo rus a dem jàkkaloog Serigne Touba di yoori leex ko jëmm jëleen liggéey muy Serigne Saliou ñun taalibe Serigne Saliou Serigne Saliou la liggéey lépp luñ ci mën dañ koy def bu jëree kii barke Nabil Moussa dañ ko ci ci cent cinquante cinq évacuation évacuation yooyu nag daa bëri ay étapes am na ci ci ëpp ci ñoom jigéen ñi mucc nañ donc soo jëlee les quatre-vingts pour cent des cent cinquante cinq ñi ci ëpp ci ñoom ay jigéen ñi mucc nañ ci guddi gi te ku xam ni mucc nañ demee soxla na soo ci tolloo taxaw taxaw waa kër docteur te ñooñu mënu ma ko woon am su dul ni oto croix fekk leen fan dëkk yóbbu leen. te ñu war a fajoo yeneen yi ci am tam nag am na ay tension am na ay asthmatique am na yeneen i feebar yoo xam ne moo daa dal askan wi avant mbas mii di ñëw comme ni ko daa xamee te su mosaa daal askan wi oto yi ñëw wala sapeur wala taxi yi te yooyu yëpp amatuñ ko amaana sapeur rek a fi am moo tax Croix-Rouge initiative bi mu ko jëlee liggéey bi nag metti na trop pare na su suñu borom a ngi ci defal ndam ba saa suñ ci eggee guddi gu jot te vingt heures ba six heures incha allah rabbi ku ñu woo rek. ñu ëpp ci ñin woo bokk ndax kenn mënut a dajal ndax yàlla doo nga mën a dajal waaye ñi ëpp ci ñin woo fekk ñu fan dëkk yóbbu leen fi ñu war a fajoo indiwaat leen donc foofu lañ toll cent cinquante 155 cas daal ñoo ngi fi fi ñu nag oto Touba ci kanam bi dem na oto Croix-Rouge bi dem na suñ beneen particulier bi dem na benn fi des te ba ñuy pare doo ñàkk beneen alerte na am noonu lay demee guddi gu jot fii bu set. suñ Pape Sayer. Euh, euh, xam naa ni tax euh, oto bi leen njëkkoon a jox. Euh, muy oto bu jógee ci commune bu Mbacké maire bu Mbacké Abdou Mbacké jox ñu ko boobu dafa tombé en panne actuellement nii kon donc dafa mel ni euh, mooy tamit mi nga xaw a wàññeeku jamono ji comme ni ko xamee oto yi nu Touba kanam joxoon mi ngi fi waaye oto bi nga xam te ne bii monsieur le maire Abdou Mbacké Ndao joxoon nañu ko dafa panne mooy bërki démb doon évacuer kuy mucc par panne dana mujj fab suñ beneen oto dem jëli koo ko yóbbu ko soog di fabaat oto ba yóbbu ko ci garage bi moo tax fi ne am nañ problème mu oto ndax ñaari oto fi am ak suñu oto particulier yi ak oto croix te liggéey bi sii di li ko war a mën a defar dëgg dëgg dëgg mooy six véhicules par jour juróom benn oto par jour ndax gis nañ dañu mujj biig jaa ngi nii parfois cinq personnes dañuy wootoondoo ci benn oto nga xam ne doo xam nooy def te distance danoo soree waaye nag comme lii leen am te ñoo ci satisfaire population bi dañuy dem ak noonu waaye ñoo ngi tàllal loxo askan wi ku nu mën a gën a jàppale comme ni Touba ci kanam def ci beneen ambulance wala beneen oto bu mën liggéey bi ndax xam-xam baa ngi fi gë bëgg baa ngi fi jot gaa ngi fi li ñu soxla rek moo lool soxlu ñu xaalis soxlu ñu leneen donc foofu lañ ci toll siin te nag damaa jàppale day yokk ndax ku xam koor woor ba ngoon mu ko roog doxantu woo génn dèjà lool rek confinement bi di gën a yokk tension yaa ngi fi yeneen yere feebar yi day yëngu fii yi doon nelaw yëpp day yeewu moo tax su war am quinze évacuation par jour jàppal na koor gi tu dois voir pourquoi pas 30. Christian dégg ngeen kàddu yi nga xam ne waa Croix-Rouge wax nañ ko kon soxna yi boo ñuy jàngatal ci lool lan nga ñuy wax. waaw kon dafa mel ne mbootaay googu ñuy tuppee waa Croix-Rouge du Sénégal ñoo ngi amal liggéey bu am solo bu yaatu sax rawatina ci jamonoy couvre-feu boobu. ndax euh, bu ñu seetloo ñoom ñoo ngi euh, jàppale doomu aadama yi nga xamee ne xëy na soxla nañu wàllum hôpital ci jamono ji rawatina ci jamonoy couvre-feu bi te amuñu kenn ku leen jàppale rawatina tey itam euh, soxna yi nga xamee ne ñooy waa amuk doom toll ci amuk doom nga xam ne ñoo ngi leen di jàppale jàppale gu mucc ayib waaye nag waa Croix-Rouge bu ñu seetloo ñoom ñoo ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu am solo muy euh, wàllum ay oto euh, loolu nag yaakaar nañ ne euh, ñoo ngi ciy sàkku daal bépp kilifa diine wala kilifa aada rawatina waa état du Sénégal ñu jàppale leen ci bu baax a baax ndax des fois ñu war a dugg foo xam ne oto yi leen war a mën a yóbbu duñ ko duñ ko am te dafa mel ne juróom-benni oto daal dinañ koy soxla par jour loolu nag euh, ñoo ngi koy jooytu mu nekk seen naqar woo xam ne daal ñoo ngi koy jooytu te euh, ñoom nag ñoo ngi def liggéey bu am am solo ñu ci sàkku daal képp koo xam ne rek euh, man ngaa defum ndimbal nga jàppale leen ci rek te yàlla tax. kon bu ko defee rek mbokki internet yi nga xam ne yéen a ñu doon safoo tey bàyyi xel seen chaîne préférée bii ñu duppee 24 actu Sénégal Sénégal kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax rawatina ci bisub tey jii nga xam ne mooy bis bu am solo di euh, weeru koor gi nga xam ne moom lañ dëgmal ñuy ñaan yàlla rek dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci tey itam ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu woor ko ci jàmm ak salaam te mbas mi nga xam ne moo fi am rek suñ boroom jëlee ko fi raxas ko te raxas xol yeeg jikko yeeg yëpp rek kon soxna Daba booy tàggoo lan nga ñuy wax. kon dañuy wax rek alhamdulilahi rabil alamin euh, di sant ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk internet yi bàyyi xel ak a safo lii di seen seen bii di wala seen site bii ñuy wooyee 24 actu di jaajëfal ñëpp di am contentement bu baax nag ci ba beneen yoo